salaamaaleykum am internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuy baax di leen siyaare di sant yàlla nag di julli jenent bi eh, di ñaan yàlla taxaw leen te yàlla jàmmal leen di leen masaw nag ci métti métti deeg coono yi di leen ñaan yàlla nangul seen koo yàlla defal nu ngeen ngi jégal ci biir social yi ma doon tourné nag di joxe ndimbali jël si woon naaf sama benn yaay mu nekk cas boo xam ne yaakaar naa ne cas ma marqué la waaye cas leen marqué la ndax fu ne la ma nit woowee di jooy muy góor muy jigéen ku ne woon ma di jooy ngir ñeewantu sunu yooy jur yi nga xam ne mooy Ndeye Diouf ci lii mu nekkee di ko dund depuis 2005 ba léegi. ba tax na moom ñu ne dañuy obliger defal ko émission spéciale bu Dakar bu social ndax kaam doy na waar te kenn ku ne rek am nga yéene jàppale ko comme ku ne am na yéene jàppale ko nag ti obligé ñu far ko defal Dakar bo social pour ngeen gën koo bàyyi xel ba képp ku ko bëgg a jàppale rek mu gën a yomb ci yéen waaye di gërëm ki xam ne mooy Tike nekk ba France. Tické mbay maa ngi lay nuyu bu baax euh, di ñaan yàlla taxaw la yokk sa borom kër Seydou jàllo gis na ni ngay bàyyi xel émission bi di Dakar Buzz Social kon Tické maa ngi ñaan yàlla taxaw la jàppale la di nuyu itam Seydou Diallo bu baax tike maa ngi lay nuyu. di nuyu itam ñëpp ñoo xam ne rek bàyyi nañ xel maire bi parce que fu ne nit wax naa ko fu ne nit woon na di tuur xewal ngir ñeewantu ko tey li ngeen ci mel rek laa ci def xëy na seen bos moo feeñ rek waaye yàlla seere na ne maire bi ñeewantu bu ngeen moom rek bu ko raw am naa ko ci moom ngir dama ko jàppe comme sama waajur comme lu baax a tax a jóg Dakar Buzz te dañ doon séddale ba dugg fi ñu ne leen ko tourné waale Dakar Buzz social pour nit ñi gën koo jàppale ci dëkkuwaay ci li muy dund mu mën a gee teggeeku gannaaw yàlla bu nga ko yàlla teggee ma ciy xaar seen loxo nag léegi nag ma jikkaat si waat fi waxtaan ak ma sunu yaay ji laaj ko jafe-jafe lan la pour ngeen gën koo bàyyi xel pour mën koo jàppale euh, maman Ndeye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. maa ngi ci jàmm. ki dem bi ma fi ñëwee ni ma la bettee euh, mu nekk loo xam ne jooyloo àdduna bi yëpp bi nga jooy àdduna bi yëpp jooy tey ñu bëgg a xam jafe-jafe yi lan la. jafe-jafe bi daal mu ngi nii yàlla mola la indi keroog nga dal ci man mu metti lool ci man depuis 2005 maa ngi ci jafe-jafe amul 2005 may wax ak yow benn nii musuma seetaan télé ndax oma télé balaa ngay am télé nga am courant kër gu ma nekk du am courant jafe-jafe rek gis nga kër gi nu mel. Eh, e dama yor njaboot amuma ndimbal ma doole boobu bu ma amoon doole dinaa dëkk kër goo xamante dina am courant maa xam ci leen nekk ci dëkk bi gis di nekk ci dëkk bi waaye duma mun a nekk di déplacer di dem kër jàmbur di seetaan télé te ma nekk mag ma toog du toog ak jafe-jafe toog ak suma métit ku ma ko xamul ku ma ko waxul nag du ko xam nag tey dinaa jooy ndax damaa gis lu ma war a jooy metit rek feebar la nakar yenn rek feebar la day yokku nakar day yokku feebar depuis 2005 ben tey kër gu ma nekk damay ŋàcc ŋàcc ŋàcc ŋàcc ŋàcc ba bugg a dee ak suma njaboot ñii dama leen di xool ba ne dama ci am kersa sax pour ŋàcc bi yaa ngi déranger doomu aadama yi waaye am na ñu xam am na ñoo xamante ne ak eh rek. waaw méttit la. tey fii nga nekk dana la fee luye wala dana fi abal. fii damaa luye woon waaye paa bi dem na ba xam ne man a ma doole pour fay loolu mu bayi ma ba jaay na kër gi xamal na ma ne jaay na kër gi ki jënd kër gi mu indi ko ak doomam mu ne ma kii moo jënd kër gi ki jënd kër gi ne ma deux laa la may xam nga ne tey bu ma doon fay normal du may deux mois mhm. ma xam ne nag mbiru yàlla moom man mi moomul ma jéem ba yàlla indi la yàlla suñu borom yow mii nag dama lay bàyyi ak yàlla ndombo yàlla bi nan la mu wor la ni nga ma bette ni yàlla suñu borom indi la xiiwal boo xamante ne fii nga nekk billahi wallahi tallahi xamoo li nekk ci suma xol bi bu ma boo xamoon bu ma mënoon a ubbi suma xol bi billahi nga gis li nga nga gis li ci nekk càmmeñ yi ma am maa ngi leen di sant ndax ay mag lañu léegi dañu doon naviguer maa ngi leen di sant bu baax amuñu doole am nañu yéene bi waaye doole amatul joom rek moo fi nekk njaboot wor na leen man tam njaboot wor ma te mënumaa yëkkati suma njaboot dugal ci seen biir njaboot métti na torop waaye nag eh, yàlla ma teg lépp ci loxo yàlla. boo génnee fii foo jëm. man bu ma fii fu am te ñu dugal ma foofu te yàlla rek a tax bëggoon naa ak suma njaboot loolu rek laa jooy. am nga doom bu góor. am naa doom bu góor mu ngi nii moom moom laa wooy Joal mu ngi nii door a yegg si. jam ñaajo laa ma laa ma tàggu dem ba ba ndax déggali borom kër gi jaay na kër gi ci ci ci ci ma la ko déggee rus naa jàkkaarloo ak man ne ma yaay nan la ñuy def borom kër gi jaay na kër gi rek mu réer dem. tàgguma jam ñaajo ba dem Joal keroog bi ma la bettee fi nga toog nga ne ma da am jafe-jafe sax pour loo lekk ak loo naan. boobu yónnee na xale bi mu yoral ko 2000 xale njaagu bi yoral ko 2000 mu wax ne astu na dem foofu mu jox la ma woo ko mu ne ma mu ngi ci angal bi di ko xaar ma ne ko astu demal yegg yeggul sax mu daje ak yéen billahi wallahi tallahi yeggul mu daje ak yéen. jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz lu metti la waaye sant yàlla ci yéen ñi nga xam ne bi vidéo bi jàllee kenn ku ne jël na ñaar dërëmam yónnee ko maire bi naam bariwul waaye utal nañ ko ci téléphone ndax danoo bëgg ngeen mën koo jot ko ndimbal li gën a gaaw fii mu nekk nee nañ jaay kër gi deux mois lañ ko may bu doon mi ngi fay weer normal wax na dëgg duñ ko may deux waaye comme fayul te loolu la borom kër gi def. ma ciy tàllal loxo rek nekk ku nekk jàppee ni yaayam la man de yàlla seere na ni bu mu amoon fu ma ko dugal wala al azim tey du fanaan billahi lazi la ilaha huwa waaye yaakaar naa leen ci yéen ñi nga xam ne kenn ku ci ne woo nga ma jooy kenn ku ci ne nee nga ma mën naa fayal maire bi location wu nangam kenn ku ne ak yéeneem ma bëgg ñu dajale yéene yooyu rek def ko muy benn ñu jàppale sunu waajur yi mu génn ci jafe-jafe yi muy dund ndax fii laa ko fekkoon te fii laa ko fekkaat ku xëy koo da ngay xëy di am problème loo lekk dem problème loo naan boo ko bëggee fay loo location day metti tàllal naa leen ci loxo te duma lañ ci tàllal loxo sax ndax xam naa ni yéen vidéo bi dugg moo tee ngeen réagir ndax am ngeen yërmande ci sunu yaay ji lan jotoon na dajale ci moom nag bariwul ndax orange money bu duggoon la ko jëndal téléphone bi ndax amul whatsapp ci des di fukki junni teg ko ci loxoom la tant que vidéo biy dugg ma ci tàllal loxo képp koo xam ne rek jàpp nga ne tey jii war ngaa dimbali sunu yaay ji ndax li tax ñu wutal ko ci téléphone mooy gis nañ ni amul téléphone te boo ko bëggee jot faaw nga am numéro te amul téléphone kon il faut ñu dimbali ko ko téléphone ngeen ma jot gi mën a yomb waaye ma teg ci loxoom fukki junni nga xam ne moo ko toftalu ci ginnaaw téléphone bi ak bokkul ak saako ceeb bi ñu koy njëlaatal tey ji ak bidon dëwliñ ak su ko la indi woon rek ndax nee naa ko waajur laa la jàppe tey lépp loo xam ne rek tey bu bu ma war nañ sama yaay rek bu ma ko la ko defal ngir li may xoolee sama yaay lay xoolee di lañ ci tàll loxo yéen ñëpp rek. nga jox ko cinquante mille tey jii yaa ngi ci jaaxle te wax dëgg yàlla ñi la yërëm ñeewantu la bari nañu te li ngay dund fii man mi fi tàbbi maa mën a xam li ngay dund ndax ku fi ñëwul mënta xam li ngay dund Dakar ba pare pour jàppale la ak bonne volonté jëndal la téléphone boo xam ne pour nit ñi mën laa jot waaw vraiment mu yëkkati fukki junne jox la tey lan lan yëg-yëg bi lan la ci Dakar Buzz. kay dakaar boos kay yëg naa ko yëg beeg bi ma ci am tey mu ngi ni wone na ko wone na ko bu baax a baax a baax adduna bi yëpp nañ ma xool nañ ma xool bu baax ba baax a baax Dakar Buzz boos nañ ma ñoo ma boos ndombo yàlla bi yàlla mu wor leen dakaar boos na addina dem adduna bi yëpp. ñëpp di dinañ ko seetaan ñëpp maa ngi leen tàllal loxo yëpp di leen ñaanal lu ngeen bëggoo ci suñu borom yàlla mu yàlla defal leen loolu te loolu mu dina am de ndax suma xol bi dafa metti woon tooy naa jooy sa def naa ko aha ndax jaaxle rek amoo foo nekk ak sa njaboot metti na boo ko ko waxul nag te gisu ko xam fii boo ko ubbee danga naan doomu aadama fanaanu fi duuse sax amul buntu rido rek laa fa def ser métti na de ñàkk moo métti duñ la nawloo waaye nag buñ ma jëppi de buñ ma jëppi de eh buñ ma jëppi dama am tolof tolof rek adduna borom kër boo ko ñàkkee ñàkk nga adduna passion daru dara saaku ceeb rek nga mun a jënd bu leen ma jëppi dañ laa yërëm dañ la ñeewant wala ñu ñi vidéo bu ñu bëri jooy dañ ma damaa sonn rek ndax jaboot loolu la te aw ma weeruwaay aw ma weeruwaay. kër gi amul courant. amul courant amul ndox. nan ngay dundeeg loolu ci biir kër gi sa njaboot. yëpp ñu ngi nii xale yi dañu dem seetaani bu lamb amee ñu dem seetaani ñëw man kese maay nekk fii toog di leen xaar. Mhm. ba pare nga ci dem jafe-jafe sax ak loo lekk ak loo naan. jafe-jafe leen doo am loo lekk. Mhm. wallaahi boo amee sa ñànkata nga def xale yi def ki masi ñu lekk boole kook métit amoo foo nekk. te wér gi demeewul noonu yow sa jëm bopp sax sa wér gi demeewul noonu. waaw damaa feebar damaa feebar nga ci bi nee na moom ma yaram bi yëpp mooy métti 2005 ba léegi kenn nga nekk ci kër kër yi ngay nekk yëpp dara baaxu ci ngay ngacc rek di ngacc rek doo mun a seetaan ndox mi xale buñ fi nekkul ma ngacc mais bu ñu ñëwee ñu ma bàyyi ngacc bi nee na ñu ngacc. waaye du ma mu xaar nda yenn saa nit ñëw boo amulee kenn du la nawloo lii yëpp ñàkk moo waral lii ñàkk doole rek moo waral lii baate bi am na ndax ñàkk mhm. loolu la de. jërëjëf mbokk internet léegi nag sunu yaay ji utal nañ ko téléphone dañ ko ci defal léegi WhatsApp ku ko bëgg a jot boo ko jotul di nga jot gorom bi moom moo nekk ak moom. waaye li muy dund rek sax lu ci wax ko ndax mënta wax lépp gor la te mënta ñaan mënta yalwaan mënta génn lim man mooy rek nga tane ko dimbali wax nañ ko sànq kaa bu nañ ko social bi dimbali nit waaye kaa bu mel nii dafa nekk kaa boo xam ne benn la ci biir kaa yi naa lañ ci loxo yéen xam naa ne vidéo bi dugg moo tee ngeen soxla na dëkkuwaay soxla na lu mu lekk soxla na lu mu naan dakaar ba joxaat na ko léegi bi ma njëkkaatee saako ceeb cinquante kilos ak bidon diwlin joxoon naa ko jëndoo ko téléphone pour ñu mën koo jot joxal ko fukk junni de tant que ngeen vidéo bi dugg ngeen mañ cee jàpp di gërëm nag ñi nga xam ne ñëpp woon na ma di jooy ñeewantu ko adduna bi yëpp ma woo di jooy muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kenn ku ne rek woo nga ma rek ne ma mère dama koo ñeewantu kenn ku ne rek jooy nga nit daf may woo téléphone ma décroche sax mu jooy jooy jooy jooy ba sag mu coupé tey lool lan la lay def ñi nga xam ne tey xamuñu la la di jooy kon ay xale ñu bari ñoo xam ne woon ma man. wallaahi loolu am na am na ñu ma woo ñi nga xam ne xam nañ ma woo nañ ma mettit la ko ne ngay dund lii nga nekk doomu dëkk bi ñun xamuñ ci lii ma ne ko nekk gor rek gor rek waaw sa jabar ji ñëw na fi jooy na ba bugg a dee jooy na ba bugg a jooy na ba xale bi di ko yurdu xale bi ko yurdu nii muy jooy mm-hmm. ñaari at kese la am mm-hmm. waaw loolu la waaw jooy nu jooy nu métti ñibbi na te maa ngi koy xalaat moom ak maam jaara su ma set bii maam jaara démb moo ko jooyloo fii muy jooy maam jaara bu mu demee maam jaara di jooy ma ne ko bàyyi leen jooy yi am eh, eh, kontaan naa de léegi moom wax dëgg maa ngi leen di ñaanal waaye nag dañ may woo ñi xam di métti lu koo xam ne woo na ma rek am na lu ko metti ci man ne ndax musul woon xam ne maa ngi Dakar di dund lii te kenn musu koo gis suma kanam kenn gisu ko ci suma yaram ba ngay jafe-jafe lii yëpp nga koy jànkoonte ma ne ko ñaar de laay gis suma doom suma set ñoo ñëw fii xam na di may dundu waaye ku ñëwul fii doo xam lu may dund. jërëjëf kon ñu bàyyi la nga ñaanal ñi nga xam ne ñoo la lii ak waa Dakar loo leen di ñaanal. maa ngi leen maa ngi tala suma loxo di leen ñaanal yéen ñëpp. fi nga war a féete sa wéjur wi yàlla dina la may kattan féete sa wéjur wi bul jooy wax na ma lépp dem nga ba a mënatoo supporter situation yi nga dem yàlla buy defar day mel ni kuy yàq mais daa fekk dalaa nar a dimbali. di nga dimbali sa yaay sigil sigil wut ba sonn garaaw yi billaay soxla ma kenn nag dama dimbale yaay rek am kër gu bu nekk képp xaw ma togg sax suma su ma ñëwee tu ma gën tax nañu añ sax damay te wute ji lu am ñëw sama yaay lu ku baax la hmm. musuma musuma kaa andil problème mu coow di ko dawal. yaayam dafa am doom mu gaañu te location moo ñu boole 2003 man ak Ibou benn nekk benn kër benn kër man ak Ibou mu takka jabar indi ko jabar ji feebar am doom mu feebar gaañu liir bi ma indi bu ñu dej bi bi fara mu indi ma liir bi ni uuf si ko indi ko may dem kër sœur waa Kër Sër dañ may woo kaay tey ñàkk am na ma dem yóbbu ñak wóor na adduna bi yëpp ba seeku do ba daaw tarante ye daaw wax ne day dem Guinée yóbbu yaayam man tam maa ngi feebar di dem dëkk ba bu ma ko yóbboo dina gelu te gelu baaxul bu biir bi dawee rek day mu yóbbu xale bi te man ma nekk séeréer ma koy nampal di yóbbu kër soor xale bi dox ba fer ween te nampul ween du yaayam man sonn naa waaye ñëpp waa ginnaaw raay ñëpp may dégg lii ma wax maa yore xale boobu ba mu do suma loxo bi benn xale njaago moom ketal indil ma ma jënd meew moom yaama ku ñuy wax yaama kenn ki Victor la tudd ci xale boobu waali njaay ne ma weer bu nekk nga ñëw waaye demuma jabaram indi meew jox ma te de koo abi moo wax mu ñëw indil ma meew bi ma koy defaral xale bi dem kër soo jënd ruy mbuus turu asaa mbuus mille meew bi may def ba xale bi yàlla dundal ko papaam ñëw di dem Guinée ma ne ko bu maa ngi dem suñu def te maa xale yi mënuñu koo yore tey ci suba woo na ma tey suba sew ibu woo na ma tollu Guinée di ma woo bu ma wooyee jox ma yaayam muy lakka bambara man dégguma lakka bi waaye maa ngi naan amiin ñaanal waaye ibu dégg na olof. jërëjëf mbokk internet yi Dakar Buzz sant yàlla rek tey ñaan ngeen jàppale ko rek te yàlla tax metti na lool ba fa metti yam waaye sant yàlla kon su waxee ba jooy rek sonn na man sax du maire bi moom ma tax a jooy c'est-à-dire li ma tax a jooy du mooy sunu frère be ku ne xam yaay ni mel ci doom ak doom ni mel yaay bëgg a def te doole bariwul wax na ma ni ma mosuma dugg ci loonu may xeebe saa bu ma xeebee maa ngi daw bu ma ñëwee sax fekk tegu nañ ma daw génnaat ngi lijjanti ji ko aduna nit ñi kun tane nañ leen dimbali toujours moo ko nag nit ñaa ngi tabax ay étage jëmale ci kaw tabax bi bépp solo mooy ci biir bàmmeel mooy jëf ju baax jëf ju baax aduna koo tane dimbali ko te ku yàlla jox fukk dala séddale loo nit ñaa ngi ci biir gox xaar di dund lu metti nanu bàyyi xel jaamu yàlla yi nga xam ne bëgg nanoo dund ta seen doole bariwul nit ñi sonn nanu man mi dugg seen biir xam naa ko nit ñi xiif a ngi leen di sonal nit ñi feebar dañ mun noo faju koo tane da nga ko dimbali teel tax tabax étage nag bu jëm ca kaw te liggéeyloo yàlla dara ci jaamu yàlla yi pertement mooy loolu àdduna yàggul te boo duñu dem duñu yóbbu dara nanu xool ñi soxla ndimbal ñu jox leen ko teel a tax yéen am internet yu Dakar Buzz nag may sant rek lu kaa métti métti ngeen décanté situation bi kon yéen am na seen fay yéen a ngi liggéeyal yàlla nag yàlla moo leen di fay Fadel amul fay sunu yaay ji situation yi muy dund nga xam ne pour mu xëy ndékki problème la mbaam añ problème la dëkk ci kër gu mel nii ñu jox ko délai deux mois ne ko da ngay génn ne ko ku nekk jàppe yaayam lii laa wax ci sama kàddu jërë ngeen